أحمد ربا كون حولي ألنا حصمني من العذاب ولنا أحمد ربا كون حولي ألنا عصمني من العذاب ولنا أحمد ربا كون حولي ألنا حصمني من العذاب ولنا صان جحات ست باق أحسنا لي ظاهري وباطني فحصنا حبي له وللنبي تبينا ولي ما اختاره قد عينا أشكره شكرا يزيد يقنا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Monsieur le représentant du Khalif général de Mourit, Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Djourbel, Monsieur le représentant du maire de Touba, Monsieur le président de la Fondation GNF al Khalif de la famille Cheikh Ahmed Mbake, Abdurrahman Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La Fondation Gaïde Fadma s'honore de votre présence aujourd'hui dans ce site symbolique pour la cérémonie de la pose de la première pierre du Cheikh Mohamed Moustapha Mbake et sous la bénédiction du Khalif général des Mourites Serigne Muntaha Mbake, Oui, ce lieu est symbolique. Il est hautement symbolique car il fait l'objet d'une disposition testamentaire de la dernière volonté de Cheikh Ahmed Mbaké Fadma. La fondation Fadma, que j'ai l'insigne honneur de diriger avec les conseils avisés de Serigne Abdurrahman Mbaké a été créée en 2010 par les membres de la famille sous l'égide de feu Serigne Abdou Fatah Mbaké Rahmatullahi alayhi. L'objectif de la fondation qui a été reconnue d'utilité publique par le décret numéro 2010-92 du 26 janvier 2010 et de faire perpétuer l'œuvre de Cheikh Ahmed Mbake dans les domaines éducatifs, économiques et sociaux. C'est dire que la mission est titanesque. En effet, Serigne Cheikh Ahmed Mbake était un homme d'une dimension exceptionnelle et dont toute la philosophie était articulée autour de l'humanisme et de la promotion de la dignité humaine par le travail et par l'éducation. Il était d'une générosité légendaire. Sa vie durant, il ne cessait de venir en aide et d'assister les personnes, quelles qu'elles fussent leur origine, ou leur appartenance religieuse et sociale. Très tôt, il avait beaucoup investi dans l'éducation pour combattre l'ignorance et l'obscurantisme. Dans les années 60, il avait fondé la première école arabe de Durbel, l'ancêtre des écoles franco-arabes actuelles, dite école Serin Cet établissement cinquantenaire a formé des milliers de cadres devenus professeurs d'université, ingénieurs, administrateurs civils, ambassadeurs, médecins, notaires, etc. Mais également dans les années 70, il construisit sur fonds propres plus de 250 écoles à travers le pays et soutint et aida des jeunes étudiants pour aller poursuivre leurs études à l'extérieur, notamment au Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, Égypte, mais aussi en France. Par ailleurs, il serait facile de citer ici ses nombreuses réalisations économiques dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Voilà un visionnaire qui avait fait un pari sur l'homme, considéré comme le principal acteur de développement. Certes, sa famille lui doit beaucoup. Sa famille lui doit tout. Mais les Sénégalais aussi lui doivent beaucoup. C'est sans doute ce que le président Abdoulaye Wade avait compris en facilitant l'existence juridique de cette fondation et en lui attribuant un terrain d'une superficie de plus de 3000 m2. Mais nous sommes légitimement fondés à espérer que son successeur, le président Macky Sall, en fera autant ou même plus. Tout comme nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour apporter leur prière à l'édifice et contribuer à la réussite de cette fondation qui est la leur. Je ne saurais clôturer mes propos sans, rendre un vibrant hommage et adresser mes vifs remerciements à Serigne Mountaha Mbake, Khalif Général Koul pour sa contribution subséquente à la réalisation de ce projet. Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde une longue vie ainsi qu'une très bonne santé. Je vous remercie de votre attention. duppee leen aljabhatul muridiya lil ulumi wal liggéey loo leen si liggéey Sëriñ Tuubaa bi ba tax na mu leen di saytuloo université bi ñuy liggéey liggéey bii waa kër Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma bi liggéey dafay dugg si liggéeyu Serigne Mountakha bi ndax lépp sàkku xam-xam la ak njariñ ci doomu adama yi ba tax na sëñ Abdourahman bi ñu ko waxee ñu sawar si lool ngir ñaari yëf bu njëkk bi mooy ndigalul sëñ Muntaxa la ndigalul sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma la ndigalul tam ki sax yoon wi la bu si des itam bu suñ borom dogalee ñu teew fii di wax ginnaaw yàlla Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko waral ndax bañuy tuut tànk moo joxoñ baaraam suñu waajur dugal ci si daara ji ba la fa meññee lu ma di doon ginnaaw yàlla si moom la jaar Serigne Abdourahman dafa ne woon na liggéey bi baax na liggéey bi sakkan na liggéey bi gaaw ñu ne ñett yooyu nag buñ ko bëggee boole dañ koy tëral si xam-xam muy wàllu ingénieur yi fi mu toll jamono yi nañ ko dëppale liggéey bi ak xam-xamu ingénieur yi du jëm si wàllu génie civil liggéey bi muy euh, lycée bi dañoo prévoir mu nekk R plus 3 maanaam rez-de-chaussée am fukki classe si suuf ñetti étage nekk si mu war a nekk bu sottee ñeent fukki classe nee na dañ koy tàmbali waxtu wu nekk ñu mën koo yokk ba egg fañ jëm ah, ni ñu dëppee plan yi moo di ne dañoo bëgg buñ duggee rek ñëw si li ñuy wax administration ñi nga xamante ne ñoo yilif ah, këru jàngukaay yi foofu la ñuy féete ku am yitte si ñoom mën a ñëw moo xam wàllu inscription la moo xam wàllu formalité administrative la nga mën a def loolu lépp ba génnaat te doo jot dara ñu jàng moo tax si buntu daara ji lañ def administration bi defaale si bibliothèque boo xamante ne nii kër yi xam-xam yi foofu lañ ko def téere yéeg yooyu ngir ñuy sàkku euh, xam-xam si daara ji mën a xóotal seen xam-xam si foofu bu weesoo administration bi ak parking bi si bunt bi ñu rangalee ñaari bolom classe yi bu féetee nday joor am ñetti classe bu féetee càmmooñ am ñetti classe muy juróom-benn si digg bi ñu def fi ñeenti classe muy fukki classe si suuf boo ko defee noonu lañ ko bëgg a toftalee ci de premier étage ak deuxième étage ak troisième étage bu ko defee boo boolee fukki ñeenti yoon muy ñeent fukki classe yi nga xamante ne war ñoo mën a dajee si barab bii nga xamante ne buñ xayma woon ne juróom fukki ndongay daara si classe la buñ boolee lépp dana mat ñaar ñaari junni yi ndonga yu mën a jàng si barab bi bu sottee lépp beneen bi si topp ñu ne boo dajalee mbooloo mu toll noonu ci ay xale barabu fajukaay mënut a ñàkk muy infirmerie moom lañ teg ci gannaaw ngir ñu mën a saytu yaramu xale yi barabu wàccaay te mënut ñàkk ñu def ko ci gannaaw ngir ko am yitti mën koo jëfandikoo ci penc mi ñu ne lu wuutalee daara ji ak yeneen daara yi mooy diina ji borom dëkk bi muy Serigne Touba ñu ne nañ dal ci penc bi am mbaar moo xamanteni ni nii xale yi danañ si mën a dallu buñ jëlee récréation waaye tam bu daayira amee mën na faa dajee buñ bëggee xewloo te mën nañ faa nekk moo tax ñu ne si penc mi dañu fa def mbaar moo xamanteni ni nii xale yi danañ fa mën a dajaloo ngir yitte ñu mel noonu bu ko defee booy dugg tam prévoir nañ sécurité lu mel ne gardien ak yu soxla nga xamante ne moom mooy sàkk mooy fàggu wàllu sécurité bi ci tënk noonu lañ ko tëggee li ci des nag mooy wàllu garab yee ak yi muy àndal ba barab bi taaru mën a jàppandi ba ku fi sàkku xam-xam nga mën koo am nu ñu gën a jàppandee liggéey bu mel ne tam nag ndax day daara yoo xam ne lu war a yàgg la kon day laaj ñuy def étude yi ci war muy étude géotechnique yi muy étude de structure yi boole ko aussi ak bureau de contrôle boo xamante ni dana mën a valider tout le process yooyu yëpp tam ñu ngi koy waajal ba nga xamante ne bu ko suñu borom sottalee li ñu fiy liggéey dana dëppoo ak jamono dana dëppoo ak qualité te itam yàlla suñu borom mën naa dogal tam mu yàgg lool. kon yéene mbooloo mi muy al jafatul muridiya ne jël seen xam-xam jël seen doole jël seen alal dugal ko si liggéey bi ndax sëñ Tuubaa ñu may lépp moo ñu amal lépp te suñ lépp mooy sëñ Tuubaa kon daal sëñ bi lañ la ko waxee woon muy guddi muy bëccëg waxtu waa ñu soxlaa sa gannaaw sa bëgg-bëgg mu ngi xam ne dana si jiitu boo leen ko waxee danañ ànd ak yow lépp ngir na ko sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waajale woon ñu am loolee ngir la dee ngërëm ëllëg salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci di la nuyu nuyoob lislaam te mooy boobu itam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 bari na nag ay pakk yu nekk ci yoon wi wàllu moyen ci la bokk waaye teewul ñi yore njàngale mi nañ ko commencé ci directeur général ak ñi fi mos a nekk sëñ sëñ Abdourahim sëñ Moustapha sëñ Cheikh Amar sëñ Moustapha Diop njëkk mi fi nekk ak ñi ñu àndal ñëpp jafe-jafe ñu am ku leen ko dana xaw a jafe waaye ñi ngi ànd ak moom ak moyens yu tuuti yi ñu am ñu ngi am ay résultats yu baax sëñ Bachir tudd na ko léegi duñ ci si dellusiwaat kon li ñu ngi leen sant jàngalekat yëpp yëpp yëpp rawat na jàngalekati lycée bi waaye du ñoom rek ndax dafa am fu ñu tàmbalee ca primaire ba ca cycle moyen ba lépp am na solo taxawaay bi rafet na lool day wone sellal te yàlla tax ak liggéey ci xam-xam ngir xam ne lu doon lay doon su ëllëgee kon yéen ñëpp ñu ngi leen sant noonu ñu leen sant nag noonu la ñuy santaane mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di fi taxawal sëriñ bi li mu gën a bëgg muy jàng ak jàngale danaa ci tudd kenn rek damaa xam sëñ Fallou ba sax mi ngi fi ngi fi excellence la tudd mi ngi fii rek ci ginnaaw garage yu daaru excellence sëñ Mbàkke Bousso résultat yu am maanaa 47 personnes da am nañ 80 pour cent ñoom itam dañ leen koy ndokkeel ndax su ngeen ko defee ñun ngeen ko defal yéen itam ngeen ndokkeel ndax ñu leen ko defal su ko defee sëñ Fallou da nga yóbbaale waa alxali da nga yóbbaale ñëpp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di delsiwaat nag jaglewaat ak cant waa fondation fondation koy defaat ca laa taxawoon bureau fédéral jot li ci jàmbati waa école bi tànkam lu wu leen ni 22 mai ak léegi yàggul ngeen def projet bu toll nii nag kon sunum xel day gën a dal ku sam xel dal nag sañ ngaa sant te ku sant itam sañ ngaa ñaa ñaan yàlla ak yaakaar ndollan la ca des nag sëñ Cheikh Fassile Ndiaye rahmatullah alayhi daana wax ne ان عذابي لشديد دون فا اغك سونو بوروم نخلا ان كفرتم دون جدوغ نين تام دون دون خرب موك نيغي سانت نيغي گرم دين نيانال سوغين يوكاي تام جيل السلام عليكم نيغي سانت سونو بونت تي الاسلام خادم رسول الله دي نيانال سونو سيرين سونو وايجور سيرين منتخا بشير مو ياغ في لول تي وير بنال يم ام تي يون ييب مو موتاليكو اك جام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 di dégg lool ci bis bi nga xam ne Serigne Abdourahmane ak njabootu Serigne Cheikh Gaynde Fatma ñoo ko woote mu mel ne lépp ci kilifteefu Serigne Ahmadou Makhtar ñu jiite yoon wi la ñuy ñaan Serigne Mountakha Bachir sunu borom eggale ay naalam naalam yim naalal Serigne Touba ñu ànd ko ak moom te lépp dëppoo ngërëmal Serigne Touba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 Euh, Abdou Xaar sëñ Abdourahman ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ci initiative bii nga jël ci ak yaag njabootu euh, Serigne Cheikh Gaynde Fatma yëpp ndax am réew xam-xama ko yor am réew ragal yàllaa koy mën a doxal am réew économie moo ko yor te bu fekkente ne développement participation éco euh, responsable bii nga xam ne jël ngeen ko ci réew mi def ko ngir ngir seen coobare defal ko Serigne Cheikh Gaynde Fatma yaakaar naa ne loolu lu am solo loo xam ne kenn ku ne war na cee roy kon nag njabootu Daaru Xudoos gépp yaare ko sëñ Abdourahman ñi ngi sant képp koo xam ne teew nga fi góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan képp koo xam ne itam sama classe gi nga xam ne Serigne Cheikh a leen formé te boo ko doon wàññi doo doo doo boo feeg doo jeexal na ci ñëpp jàpp ci liggéey bi na ci kenn ku ne def loo man ak loo mënul ndax moom kat ba mu koy def booba wax dëgg yàlla lu jafe woon la ndax jamono ja metti woon na addina euh, naqari woon na waaye teewul gis nga lam ji sax na tey jii ba nga xam ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi may wax noonu Serigne Cheikh boo ko consideree moom ci boppam man nam réew ci xalaatam ak xelam ak i pexeem ak ragal yàllaam ak euh, jaamu yàllaam man nam réew sëkk sëkk sëkk parce que xalaat bii mu xalaat ba tey jii lii juddu ci tey loolu yaakaar naa ne ku mën a yor réew ak ku mën a defar réew rek moo ko man kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم واي بعد بن جيم موي اسا رجعوا اسا رجعوا القران في نانا ليك ليك نيت جانغي تدو نيبسي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 ak yeneen naal yi ñun dañu noppalu ci isaa rajau tàmbalee jàng sunu bopp jàng li nu am xam ñi nu am romb fi nu yem jàng sunu bopp xam sunu bopp xam li nu am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 waaye ñoo bokkaat ci yor kooku yi lépp ba ci néegu gëriñ bi ñoo ko bokkoon seen diggante lu xóot la lu war a tax lu kon lépp lu ñuy defal Serigne Cheikh Cheikh Mouhamadou Mountakha kenn waru ko jël ndax ku ne xam ne Serigne Cheikh xalaatama yittee bi waaye ak mu dëgg tërboom mu dem ba seeree na ay kàddu rek ci yooyu jamono te boobu xam ngeen ne li doxoon seen ngeen ci ñoom ñaar bari na loolu waaye seeree na lu bare bare kon nag loolu lu kàddu yi yooyu rek laa am ci lu ma ci yëkkati waaye woon bëti woon mu nekkoon xaritam lool Cheikh Mouhamadou Mountakha daa fi yëngu bari ba nettali na sax wax ne bi muy njëkk siyaare ji Serigne Souhaïbou boobu moo Serigne Cheikh ñoo faale ñaari ci la ko Serigne Souhaïbou njëkk gise fekk Serigne Souhaïbou dafay dafay dafay yónni ne ko doo ko dama ko soxla dama faa bëgg ñëw nee na Serigne Cheikh ne ko néew dana ma dinaa ko ñëw nee na ba mu fay dem nag yàlla def na ñoom ñaar ñoo xam ne kon bu ñuy defal Serigne Cheikh lu toll nii te yàlla def fekk ko fi muy Cheikh Mamadou Bassir mu jëmmi Serigne Touba faaw mu feeñal ci yéen donte la xam na ne njabootu kër gi xëjuñ ci fukki lii waaye nag feeñal yéen rek ci ci ci def te nee na it ñu ngi koy ànd ak yéen te ci soññ ñëpp ngir xam ne wutaliw ko sumb bi kon nag sëñ Abdou Rahmane ñu ngi lay ñaanal ndax xam nañ ne yoon wépp ñoo maase seeral ko mooy secteur bi.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 fépp fu mu teew ci àdduna ba léegi ni dama naa leen ay xalaatam jamono ak aggu ko bu di ko weesu loolu tawfeex bi ko Sëriñ Tuubaa ko defar ci ak ni mu formé kenn xamul mu toll Serigne Cheikh mu Serigne Aliou mi doon wax léegi dégg nañ kàddu yi mu wax daanaka sama kàddu sa mënoon naa yem ci kàddu ndax moom rek firndeel ci ndax moom lañ ko tuddee waaye moo ko moo ko moo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 سكم أدنى لنا كمتي واي سكم كسيف شجريون لنا كمتي لالكون مم جيتو أنا جمعنا تشي أدنى طول لي شيء ديكو خلاص بدي كوردا بوشي جورم جانا كنا لي بكونا تشي مرت لي كنا على بوليوي تشي نك خم خم دفيا جا نخ الشيخ محمود مصطفى لو ما نلو خم نه لو جفلا نخ خم جنه njëkk a wuutu Serigne Touba ak boo fi àdduna toll fii xat-xat toll yoonu mu di taxawagut nga war a taxawal lépp waaye sa ñàkk jot ndax li nga yilif dafa bari ndax booba ñi doon kilifa ci biir yoon yi ñëpp Serigne Touba defar lañ ba gisatuñu dara moo fees dell biir yoon bi muy ñoo xam ne mënuñoo topp ci ginnaaw kenn ñooñu la jamonoonteel boole tubaab yi ne fi doon jéem ci sëriñ bi tëli ci moom war a mu war a jéem a lijjanti nag taxawal yoon wi jàmmarloog tubaab yi cim xel ba taxawal yoon mu ba yoon bi ak ci biir lool la muy xat-xat muy taxawal yoon wi di tàggat seex si jawatu suñ tubaab gépp mu leen di tàggat di leen forme ku ci toll ci war a taxaw mu rek ci barab samp la ni mu ko defee ci ñu baree bari waaye teewut loola la muy xat xat xat fii ci biir Daaru Xudoos wala kër bu mu sa nekk ci biir dëkk yi daana jàngale xam-xam ba am na ci lenn ci ay rakkam bu mu jum Cheikh mu Mourtada ci bokk ak lenn ci ay rakkam ci waa ñoo xam daan leen jàngal ak lenn ci ay doom kon loolu boole kon jafe na kon day mel ne suñu Cheikh cër bi mu am ci xam-xam ba di ko dundal day mel ne foofu la tàmbalee muy ndigal la leen Sëriñ Tuubaa joxoon moo rakam ju tedd ji Cheikh Mamadou Fari kon nag ngir bañ a guddal ndax Serigne Cheikh ku duggoon di waxtaan ci moom doo xam fooy tàmbale waaye doo xam fooy ndax fànn fànn boo indi ci aw doxinam wala ab taxawaayam rek man nga caa tàmbale ba guddi fekk ni maa ngi jéggul nag yeex agsi bi ndax dafa fekkoon ma sori ndi nga dab ma ci yoon bi ma doon ñëw te yeex xam ak bi kon ñu ngi jé jéggulu ñu invité ñëpp di ñaan liggéey bi ñu tàmbali ci liggéey lislaam ak mottali ci yéen yi ku baax kooku yàlla na ko yàlla na fi sëy suñu borom bàyyi ci barke suñu Tuuba ba lépp ngeen mottali ko ñu ànd ko njabur gépp ak sarak yépp kenn bañ a manqué wassalaamu wa rahmatullahi taala wali لا يفدي دواء يقنا بجلني مغن كريم مكنا وطيب الرزق لنا والمسكنا إلي قاد الله أجرا حسنا ويقظا طيب لي والوسنا لي قاد في نومي سرا بتنا وبي يباحي كل من تفتنا جمال ربنا توجعلنا بغير مكر ذات نذء لنا نفى العزيز ما يجر الوصنا لغير نحوي ولغير ينسنا نفى الذي كيد الأحد وحنا شكيحنا في كونه لي وحنا هدمت بالله بنا من لعنا بلا لقاء والإله معنا تبت له من غير شكر علنا وقعد لي منه تعالى ولنا عدم توجيه مكاره القدر من جكسس لأبدا محى الكدر عدم توجيه مكاره القدر من جكثث لأبدا محل كدر إلا يواجه الكريم الباقي ذو الأرض نصب وتباقي ما رمته من بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى شهد لي ربي بأني عبدوه لو قديم للنبي ويبدو هدم بنية أذى يلاح يقضي الذي نادى عن الإله دون مكاتب العبادات معها تغربي كل المذايا جمعا وجه الذي يحبني يبيدو يوم وجوه السعداء تبيض أجر الذي ناذحني ولم يتبوا شقاوة تدوم في